inoga ina yon ba irip jaga oy na Aïcha jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy suivre à travers Sénégal Info ak suñu xalaat TV ni ma leen di safoo di leen namoo di leen kontaanee à chaque fois mais leen di toppatalee li nga xamante ne mooy làmb actualité ak lépp loo xamante ne mi ngi leen di neex fii ci biir chaîne yi tey ñu moo ñeen waat fi xamante ne mooy géejawaay nee naa leen géejawaay dëkku làmb la géejawaay champion boo fi toogal rek def na jaloore ci biir làmb ji mais balaa boobu ginnaaw bu ñu baloo àq baal ñëpp àq ñu ngi jaale ak lu làmb ñi ngi jaale waa Gaston production waaye ñi ngi jaale ki nga xamante ni mooy Makan Mbengue suñu papa ñi nga xamante ni moo fi bàyyeekoo. muy xaaj Gaston Mbengue ñu koy ñaanal yàlla sunu borom xaare ko aljanay firdawsi te mu rëccu lépp loo xam ne mi ngi ko doon def àdduna ñu ngi koy jaale ñëpp ñëpp ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci axlu làmb ndax Père Gaston kenn la koo xamante ne ci làmb lu nekk def na ko fi Père Gaston bu ñuy wax làmb ak degré bi mu am Père Gaston def ci bokk bay ci waaram donc ñu ngi koy ñaanal yàlla mu xaare ko aljanay firdawsi di ko jaale axlu làmb waaye di ko jaale famille Mbengue bi yëpp waaye tey nee naa leen damaa toog ak champion fii ci biir Géejawaay su bëree mu neex su bàkkoo mu neex ñu gis dernière sortie mu ñëw def fi jaloore def fi lu doy waar waaye dafa am bés le 26. ki mu am mooy sama problème mu nga xam ne Ibo Kër Mbay Fall ñu xool nu mbër di waajee làmb ji rek ak fan la ci toll parce que làmb ji ampleur bi mu am làmb ji coow li ci nekk ñaari xale yi daal doy na waar mais ñu waxtaan ak mbër rek après ñu xool mbër maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi lay fay ginnaaw baatu onze billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ñu sant yàlla jaaroo ak maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg jërëjëf Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg maa lay nuyu di nuyu sa cameraman xam nga di nuyu Sénégal di nuyu axlu làmb di ak ah, ni nga ko waxee rek ñuy jaare sunu sunu frère sunu grand makan sunu papa ji fi wàññi ko naan yàlla ko yàlla xaar àjjana te yërëm ko. ayca ginnaaw bu ñu nuyoo ak mbekk internet ba pare ñu gis dernière sortie bi passé xaw na jël temps. boobu ba léegi lan moo téye woon réparé avant muy duggaat ci contrat bi. waaw bu ñu bëree ba léegi wax nga dëgg xaw na jël temps waaye du si réparé quoi si yenn adversaire la woon waaw ak ak ndogal sunu sunu borom daal waa waaw waaw di diiran boobu la ñoo ngi doon dox adversaire waaye tey nag échange rek sunu borom doog a dogal daal. Mm-hmm. gars yi ci kañ kana kana doon daw. non actuellement nii moom soo waxatee amatul sens ndax ndax yaa ngi si contrat du dëgg kon échange yi duñ focus si ñooñ dañuy ñu war a bëree le 26 incha allah. lan mooy choix bi moo tax nga ñëw comme wutal nañ la adversaire ba sonn nga dal ci champion Kër Mbaye Fall. non champion lan daanal la mbër la aussi du dëgg waaw te xam nga te balaa ngaa doon champion il faut nga daan champion la xam loolu moo waral xam ñu proposé ko suñuy at suñu suñuy kii dafa nangu moo ñu jël ko daal. yaa ko choisir. non même pas waaw lamb moo ko choisir. lamb lamb moo ko choisir waaw ñoo xam ñi nii ay adversaire lañ ay adversaire potentiel lañ xam nga ñu démarché ko. Oh, yaa sottal ko daal. lan moo si diggante euh, adversaire yi si diggante Ibo ak euh, Réparé parce que laamu ji des na mais coow li nga xam ne moo ci koo wax bu tuddee le 26 danaan sama combat mooy Réparé ak ki nga xam ne mooy Ibo dër bi la wala. non pas dër bi sax dañoo xam ne moom ñaar xale lañ ndax lamb la moo si daax ñaar xale yu bëri moom xale la ma xale la du dëgg mu ngi def ay preuve maay def suñu preuve ah, lamb ji ba ñu ko bëggee yàgg na waaw ah, ay ay promoteur promoteur yàgg nañ ko dox waaw kii ni waaye yàlla maa dogal suñu borom jagleel ñu si ñu sant si yàlla bu baax a baax waaye gars yi ñoo xam ne man ak moom suñu bëree mu neex xeex xeexee mu neex te incha allah rabbi la ma ko daan wax rek mu si jógee dina neex dina yëngu. Hmm? ko réparé di. waaw mooy li mooy mooy li Coumba Gawlo waxoon rek dina neex dina yëngu. waaw. su ma ñëwee rek ñoo xam ne ñëw na. Hmm. mais dajeel est bii yooyu la. waaw yow man man man focus si moom. bilaa walaay focus moo sax si moom. waaw man sama bopp rek li may liggéey laa xam quoi moom moom lépp lu mu def nag waaw moom la concerné quoi man li ma xam muy arbitre civil la ma jàpp du arbitre civil la ma dagg jéngi jàpp ko duma ko dànk incha allah si kàttanu yàlla loolu rek laa si yàqu. nee na la booy defal ndànk booy defal ndànk ndax li ma lay waajal est ce yaa ngi bàyyi xel wax lépp lu mu mën naa ko def lépp lu mu mën dinaa ko def bu yow suy ñëw ne indaale peel. waaw bu yow suy ñëw ne indaale peel. su ma mënee na ma rey suul ma foofu. lii laay waxati ci tension bi nga xam ne moo nekk ci làmb jooju non combat bi xoogu ko taxawal waaye daal kaa am na muy ko neexee ne indaale peel laa wax su ma mënee mu ma suul ma ma ko jékkoon du ko may. su ko jékkoon da ko may si dara. Mm-hmm. Ibo am na fit te Ibo bandi géew la ba pare Ibo dafa mën a xeex te bi paase kawoo nga indi. man ku ma yab ci micro nga ma yabee. waaye su arbitre nga ne tekk déglu biir arène nationale man lay muus la biir géew ma lay muus la ku ma yeb si micro nga yooyee waaye su ma ñëwee nga ne tekki déglu ma. Mm-hmm. kon lan lañ mën a xaar. lépp. lépp lépp lépp la. siyaar nañ la jaan baa ngi noonu maam Thierno. waaw borom daaru ñoo ngi koy siyaar bu wér waaw ñoo ngi koy siyaar bu wér. Mm-hmm. lépp lu mën a gis. man mënoo maa natt ci fenn. Mm-hmm. lépp mën na ñëw à tout moment mais bi nga xamante ni moom la Ibo di bëree ak réparer stratégie bi muy bëree dafa waroo. non man man moom wax dëgg fa yàlla ñu nekk sama sama équipe am na lépp sama équipe am na lépp Guédiawaye tamit aussi am na lépp sama équipe su manqué dara mun naa dem beneen équipe wul dara ku sa Pape Thiam nekk sa ginnaaw Mara nekk sa ginnaaw mag si kër yi ñoom Gabassine am nañ lépp moom su xaaree arrangé na ma. su ñëwee arrangé na ma su taxawee lu mu def arrangé na ma lu mu def. lu mu dégg ma ko de man sama bopp laay déglu man lépp luñ ma digal dama luñ ma digal def déglu ma ko ci moom ci dara moom lu mu lu mu waaj rek ba arrangé na ma ko arrangé na ma waaw waaw. Ah. am njaay joxal jóg lépp lépp lépp mun na lépp. Hmm. mais yéen ñaan ngeen kawo bi moo tax nga naan lépp lépp lépp man ci man man man ci lu ma jugee fàtte naa ko. Hmm. su lu ma jógee naa ko man du may dem làmb naan tey lii laa war a duma ko def na tey mun man mun naa calculer ne lii nga war a bëre nga dem fekk feneen waaw man damay pare lépp tout waaw ça en tout cas daal man daal stage universitaire la quoi waaw ah. yëpp. Hmm? ay le 26 mais combat bi waajtaay yi fan la toll. waaye yow man na mu dara maa ngi sant yàlla bu baax de waaw teg ma si condition yu baaxoo ku ci mel ne Assane Pall gis nga ko gis nga baas yooyu mu defar Assane Pall mooy sama premier sujet mu ngi siy jàpp si tous les côtés parce que Serigne Touba waaw ah, ñu si mel ne ñoom Lamine Diop ñoom Paquetas waa koñ bi ñëpp ñoo ciy taxaw te bëgg naa tam aussi ñu gën see taxaw ni ñu ciy taxawoo nii dëgg la baax na waaye ñu gën a gën a gën jàppale waaw su ma sigee di leen seen quoi. organisation kenn du la ko laaj ndax kuy takkee géejewaay ba pare xam nañ ñi ngay ñëwee aussi biir làmb ñoo ngi ci de ah ñoo ngi ci incha allah rabbi ñoo ngi ci waaw ah, ñu ngi si bu baax a baax man moom sasuma dara lu dul ay biir rek laa soxla ay biir rek laa soxla lii daan lii daan mbër man maa koy liggéey quoi a ah, ak nit ki lu lépp lu ñu ma mënti jàppale dernière position bi ci man la quoi ku ñu mun mënti jàppale ci kaw la ñuy yem. xale jigéen ñi dagg seen yaram man maar lay fuñ waa gis noom ñëpp a ngi ci ñëpp a ngi ci waat bi laa walaay ñëpp a ci waaw man en tout cas leen rek lañ ma sant entraîné léegi tëdd mhm. waaw te maa ngi ci quoi waaw entraînement léegi tëdd maa ngi ayca côté ambiance. waaw lépp xamul lu gën a neex <laughs> ñu bàyyi ñu indi safar moom dafa mën a fecc pire naa mën a fecc pire. parce gis ngeen excla ngeen boo jigee fii mu jug fee kenn gisatul kenn. non ma ne la bis bu ñu bàyyi woon laax ñun ñoo di safar. Mhm. te ñoo ngi koy ñaan. barke Serigne ñu gis la doy ah. gis grand combat bi. man loolu man na ma te leer na ma. Mhm. xamante ni combat bi moom la la a yóbbu est ce que yaa ngi sóoraale loolu ah, bu xam naa ko bu baax a baax baax ah fi ma combat mën xam naa ko bu baax baax baax mhm. xam naa ko bu baax waaw ah. yii làmb ji yàlla baax na baax na su ma ñëwee dina xam ne mën na réparé ñëw allah. nga yëg xam naa xam naa xam naa xam naa bu baax waaw mhm. ah, xam naa ko bu baax a baax moom na na xaar si ñëw deuxième def tey rek incha Ah waaw lu ñu wax Sénégal léegi la moo xew. lépp lu am ñaar nga xool dem hmm. président bi ñaar hmm. moom na ñaar ñaari ah, moom teg ah. waaw <laughs> lépp ñaar mais loolu ci loo ko teg nag réparé non ci samay rek hmm. waaw samay entraînement rek ak di ñaan ci yàlla rek ndax jaam lañ ko waaye dañuy ñaan suñu borom rek mu suturaal ñu may ñu ndam ah te am nañ ci yaakaar incha allah waa oo rek. waaw man du ma taay di woo Assane Pël Seeru Musu Baye Cheikh Ndaw Baye Mama Arama doomu yaay juma waaw ñoo koy ñaanal bu baax a baax di sàkku si moom tam ñu aussi ñaan bu baax di siyaar ku ci mel ni Lamine Diop ku ci mel ni Pagatas Aliou Ndiaye booy koy ñaanal jàmm bu baax ku mel ni Baye Sall su ñoom Baye Sall dan dan sama doom yaay moo yóbbaale boo yëpp a ñoom moom comprendre ak ñoom Touba Assane comprendre góor gi. Euh, ku ci mel ni Galo Galo maa ngi koy sant bu baax baax baax baax baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm comprendre Omar Sané maa ngi koy nuyu tam aussi bu baax baax baax xam nga kooku suma nit la suma lépp la sama booy yi war a bëre suba ku ci mel ni Pakatas maa ngi koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam ku ci mel ni borom daar aussi maa ngi koy ko may ko ndam lu seddu guy guy guy nekk sama koñ yëpp maa leen di woo ci aussi ku ci gi maa ngi woo ci combat xam nga diisoo gone tey maa ngi baax xam nga maa leen woo ci combat baax di dem ba yëmbal tamit di woo ASC bu mel ni boo xalaat naa ah. comme ni ñu defoon bi passé rek fa woon maa leen woo ci combat bu baax a baax a baax baax bàyyi kenn kenn kenn kenn kenn képp ku moo tuddul rek xam nga damaa juum xam nga ku ci mel ni tamit aussi Kanji Kanji production Kanji production maa lay woo ci combat bu baax baax soxla naa si jàppale comme ni mu la ko waxee woon rek ay bière laa soxla pour samay boy mën a dem. donte jàppale bi dama fa ay biira soxla pour samay boy mën a dem daal comprendre mbay loo tam aussi maa ngi koy siyaar bu baax baax a baax umu fese na maa ngi koy nuyu tam bu baax baax di di dem suma xarit suma doom kilifa muy Ibou Ndiaye ah. Ibou Ndiaye borom crevette ya ah. maa ngi koy nuyu tamit di ko woo ci combat su ma ko ñëw su ma ko ñëw kooku suma deret la di laa walaay ku ci mel ne Lamine Nara ah. Lamine Nara maa ngi koy woo ci combat bu baax baax Assane mbii mi depuis ba combat bi taxawee ba léegi mu dox ay jéego yu am solo mu ngi ciy sonn guddi ak bëccëg suba ak ngoon alsan bii ma maa ngi koy ñaanal jàmm te aussi bu baax a baax baax ay libee libee Ndiaye maa tam nuyu bu baax bàyyi ma kenn suñu axlu café gi ah axlu gi jëriñ lamb maa ngi koy siyaar di ko bàyyi combat bi sëñ xaalim Touba si xaalim Touba sëñ xaalim Touba combat bi sa combat la sëñ xaalim Touba combat bi sa combat la maa la ci woo bu baax a baax a baax a baax a baax xam borom daaru borom jaan bi ah waaw maa ngi koy siyaar tam aussi maa ngi koy woo ci combat bu baax moom xam na ma xam naa quoi waaw. Ah. Ibo su abi sifle na nga taxaw dëggal sa bopp te bu lu fàtte peel bi mu la na nga ko indaale. te bu mu fàtte dëggal boppam. ay ayca sama technicien bi Souleymane maa ngi koy ziar bu baax mais peel bi man moo ci sama problème après ñu xool rek Ibo naka lay analyser loolu nga xam ne mooy peel bi maa ngi nuyu ñëpp di kontaane ñëpp di ziar ñëpp di naan suba nag la suba muy samedi muy journée Mor Diouf moo Diouf production nee naa la journée boobu macha allah parce que xale yi nga xamante ne ñoo ciy bëre ñoo ñoo ñoo doy ñoo làmbee donc maa ngi kontaane ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ayca.